neex na bu baax a baax kii di Mamadou ñu gën koo xam ci ay dara boobu boobule daluwaay da koo tegoon daan ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2011 daan boo xam ne moo gënoon diisle principal accusé bii di Karim Wade ci mbir mu ñuy duppee lewal alal ju lewul fukki atu kaso ak lu ëpp téeméer ak fanweeri milliards ci suñuy koppar ak it nangul lépp luy moomeelam. la juridiction qui m'a obligé à quitter le Sénégal, à lâcher mon Euh, CREI moo tax ma jóge Sénégal euh, moo tax ma bàyyi sama njaboot samay projet ak euh, samay xarit kon jàpp naa ni dañ ko war a dindi mu daw làqu ca France ca atub décembre 2012 franco-sénégalais bii nag dañoo gàll ci ndoddam ab mandat d'arrêt international moom mu gis ne di fowee institution républicaine yi loolee bari na lu mu mën a jur la propriété mooy loo xam ni ab notaire moo ko xaatim bu fekkee ne nit ki dafa am moomeelam kër yi ñëw ne moomeel boobu amul valeur wala keneen moo mën naa wax ni am Sénégal képp ku fi am moomeel jàppal ni nekkul sécurité ñu bari ci ñuy xeex àq ak fu doomu aadama dañoo yàgg sànni xeer CREI yi li ñu koy joxañee baaraam mooy ne kenn mënul def appel ci dogal bu mu jël ba noppi waaye ki fi doonoon patron wu AN Média moom li mu ñaaw lu bokk na ci seyal bi ñu seyal CREI yi amul benn njeexital ci daan yi ñu leen teg te li ko waral du leen lu dul ne pool financier bi nga xam ne moo remplacé CREI yi dafay wëyal dossier yi nga xam ne daluwaay bi yoroon na ko